def lu am solo loo xamante ni yàgg nañ di ko def mën naa ne at bu nekk bu ñu tolloo ci waxtu wi dañuy ñëw xool li nga xamante ni jotoon nañ ko tënk euh, ci ndaje yi ñu doon def ci commité régional de développement yi mais comité départementaux yi nga xamante ni préfet yi ñoo koy jiite ak comité locaux yi pour seet euh, la nga xamante ni tënkoon nañ ko fan lañ ci mujj te bi ñu ñëwee mën nañ ne mën nañ wax ne euh, gis nañ ne lañ fa waxoon yëpp bi ñu ñëwee gis nañ ko ci terrain bi ndax. ñëpp ñi nga xamante ni si tey dañ fi teew pour euh, saytu ndax ndogal yi ñu jëloon euh, si CRD bi nga xamante ni gouverneur région moo ko présidé woon ndax ndogal yooyu ñu ngi koy wéyal gis nañ ni centre yi euh, am na sécurité parce que force de défense et de sécurité yi ñoo nga fa mais protocole sanitaire bi ñu xam ni teg nañ ko pour aar candidat yi si mbas mi ak examinateur ak président jury secrétaire yëpp loolu mate na si centre yëpp ñu visité tey ju ñu ngi xaar Ndofène Diouf mais dem nañ aussi centre Coumba Ndoffène Diouf lycée bu am ñaari jury mais matuwaay yëpp jël nañ ko